asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jumel ñu ngi nuyu baax nuyu As-Samadiyya ñëpp di ñaan euh, sunu borom defal nu jàmm ñu fas yéene dellusi Jawhara Nafis bi nga xam ne ñu ngi ko fi jàngale àllarba jot ci bu ñetti waxtu jotee fas yéene ci dikk yéen di ñaanal sëriñ borom kër gi sunu borom àggale ko yéeneem ci lii mu sumb te jublu ci tasaare diine islam sunu borom defal ko ci lu kaw njortam mboolem ñi nga xam ne ñooy ànd moom ci liggéey bi sunu borom jàppal leen ba kenn ku ci nekk na mu ko war a mën joxee mu jeexee ko ko ci barki Xaadim Mustafa bismillahi rahmaani rahim mu mel ni dañu fee la tàmbale te ñu war tàmbalee ci dañuy fas lu lib tàqale la fil ay di ci mbërëg wa muddatihi akub diiram wa maa la nga xam ne yataallaqu dana aju bi ci moom Eh, mbërëg jigéen la koy gis jigéen a koy gis ci weer wu ne mu tudd deret yoo xam ne day génn ci moom ci kanamam ñu di ko tuddee mbërëg kon ci lay bëgg a wax wax la diir bu muy am wax la ak lépp la aju ci moom la aju ci moom mooy lépp loo xamante ne bu dikkee waroo koo def wala war eh, ter nañ la ko mu ne waxu yobbu niswaani way mbërëgi jigéen ñi fi taq simi ci cëddale salaasatu ñett la in oddat ndéem limeef na ko alal maalumi ci luñ xam jigéen ñi war a mbëri daal ñett la ñett ñetti xaaj lañ ñetti xaaj yooyu nag xaaj bi ci nekk dañ la wax su fekkente ne mi ngi ci xaajam nu mbërëgam war a toll kooku mooy kan saa tuttidaa yi boroomu tàmbali ki nga xam ne day tàmbalee gis mbërëg ba daxa gannaaw ga muxtaada aji baaxoo ja wa xaamilun ak ajëmb ja tarjo dana yaakaar bi ca moom al ifaada njariñ la saatu ibtidaa yi kuy soog a tàmbali nga xam ne soog a gis régal tey jii lañ ci gis régal ñu ne daa am fukki at ak ñett wala fukki at ak ñeent rek gis régal gën jaay yeex fukki at ak juróom-ñett ku ci àgg da nga ko gis kon kooka nee na mooy ku njëkk gi ka ca tege mooy ki nga xam ne ko baaxoo yàgg naa gis régal weeru jot mu gis ko ka ca tege mooy ka ëmb ka ëmb dana gis nit dana ëmb ba di gis reegal du tee nag kuy gis reegal ba gisoo ko ci weer dañ naan daa jël weer weer yu ko gisul nga xam da ko jël ci lañ naan kon kët kii gën dëgg daa ndax weer danaa gis reegal waaye gisu ko teewul mën naa ñetti weer am ñeenti weer gisaat reegal suñ diggee nag loolee kenn ku ci nekk dara bëgg a wax noo xam ne bu ko gisee na xam ne nii moom la def jigéen war na koo xam góor war koo xam ndax nit léeg-léeg li eh, soxnaam dikk ni quoi bu yàgg ba dama sidul te doo xam ba xam nu koy tontu. waaw kon wax naa la ñett yi moom kenn ko ci ne ne war a mel nee naa la kii nga soo gis fukki fan juróom mooy gën jaa bareem ki ko baaxoo la doon baaxam bu dee ñaari fan la ñetti fan la juróom fan la ñetti fan la na topp baaxam boobee su fekkee baaxam ba jeex na ba mu gisaat ko digal ko mu dolli ci ñetti fan suñu doon ñetti fan mu xool ba xam waaye nag su fekkee baaxam bu ci dolli ñetti fan mu ëpp fukki fan juróom gët kon ñetti fan yooyu doo ko ci dolli am lu am am na leneen nag loo xam ne mën di séparé ñoom ñoom ñetti ñëpp mu digal ko xam ne ñoom ñetti ñëpp ko bokk murha digal ko bi tal fixen ci tàppe li kayitu kammilaa ngir namatal aadataha baaxam ba kañ koy digal loolu isaa xasalaa ñeem am na in xitaahun ak dog su fekkee day gis ragal tey suba su mu dog gisaat ko tey gënaaw suba su mu dog fan yem koo gis rek lay wàññi masalan yow ñetti fan la baaxoo gis regal mu gis ko tey suba gisu ko ah na ne am naa benn fan gannaaw suba su mu gisaat ko mu ne am naa ñaari fan gannaaw suba su mu gisaat ko mu ne am naa ñetti fan bu dee kii xam ne fukki fan juróom la am kon daanaka dana am dana am weer woo xam ne ko gis regal moo tam loolu day am da nga koy gis tey mu daat dog kon bis yi ko gisee ngi lim waaye doo lim yi muy dog mën koo gis tey it mu dog ñaari fan wala ñetti fan déllusiwaat su boobaa da ngay lim ni am naa benn fan ak bii muy ñaar moo tax mun murxaa nañ ko digal bi talfixin ci tappe li kaytu kammi laa ngir na matal aadataa ba aadaam ja isaa xasalaa njeem am na inqitaaxun ak dog da nga dikkaan man de damay def ma gisee reegal rek dama gis tey waaye bu suwaa du gis bis boobu gisul sëñ te julli sëñ te joxe soo jëkkëram sëñ te def dara ndax booba tamit dañu ko jàppe at ateb ko reegal ko am reegal loolu nag day am ndox muy génn ci moom mu weex moo xam ne bu génnee mooy xam le ne ndox mi eh, régal bi jeex na lu mel ne saabu yi ci kanamam su ci génnee na xam ne jeex na soo gisul loolu nag te gi gis dara na xam ni mooy continuer kon da nga koy digal mu tàppe fan nga xam ne ma nga gis régal ba aada jëm aada woo baax mat régal ba soo ko taxaw ñaareel mooy kan ñaareel mooy amalati nga xam ne ihtadat baaxoona bi ñuy moom min xabli njëkk lii fëtil ko kookee day ay li jubla wax xaadatu aadaam ja xusaa jàppal saaka loolee bu ko defee boo ko waxee ne xel mi neexul man man li nga wax dégg naa ko waaye ba xëy xamul a jublu mun la ki nga daa baaxoo di gis régal na jàpp fan yi ko daa gis nu mu toll mooy aadaam ja na ko daa gis mu ñetti fan la ko daa gis kon bu gisee ñetti fan su dogee na dem sangu waaye nag su fekkee daa gis ñetti fan ba noppi dugul nag moo lay leeral ndax aada ji ñëw na kët aada ji dem na ba jeex waaye ba aada ji jeexee nag mu tëra dagg mu ne ki nga daa baaxoo nag su fekkee aada ji noonu fayin tamaa daa jëm tippër na ak damu dara ji moom tamaa daa day tippërle tamaa daa day tippërle faltu si na dolli salaasal ñett minal ayama ci fan laa taxit bul jeng su fekkee aada ji daa ñëw aada ji jeex ba noppi dugul na ca dolliwaat ñetti fan ñetti fan la ca dolliwaat su ñu ko bu ñu doolee ñetti fan bu setee mu sangu waaye na ñetti fan yooyu muy dool nag mu ne maalam tujaawis fii jéggiwul nag tilka ñetti fan yooyee xam sa taxasal fukk juróom yoman ci bis falaa sayda déet ak dolli yox tabar defe xalan ko xon naa ko foofee ki nga xam daa baaxoo woon gis ñetti fan mën na dolli ñetti fan ki baaxoo gis juróom benn fan mën na dolli ñetti fan waaye nag ki baaxoo woon gis fukki fan ak ñett ñaari fan képp la sañ dolli ndax mbërëg mi du jéggi fukki fan ak juróom moo tax mun la maalam tajaawis jéem jéggiwul tilka fan yooyee ñettim nga ci dolli ma lay wax xam sa taxasar fukki juróom yoman ci bis kon falaa sayda déet ak dolli xon naa ko foofee yox tabar defe ko kenn du ci dolli dara dara fekkee ne fukki fan juróom euh, kon doo dolli dara masalan koo xam ne ba nga euh, baax ba nga daa gis fukki fan juróom la bu dee fukki fan juróom nga baaxoo gis nga gisaat ko fukki fan juróom kon doo ci dolli dara waaye su ñetti fan nga ko baaxoo gis mën nga see dolli ñetti fan ñetti fan nga dollaat ñetti fan dugul nga dollaat ñetti fan dugul nga dollaat ñetti fan dugul ba ba mu mat fukki fan juróom kon noonu la war def kon daa mel ku njëkk la waxoon ki koy soog a gis mu ne wa aksarul xaydi gën jaa yàggi mbërëg lisaatil ibtidaa yi ñeel boroomu tàmbali ga xëyun fukk a juróom minal ayaabi ci fan indal muqtada fas ku ñu roy ka ki nga soo gis mbërëg yoonu mu njëkk la munta bare bare bare bare ba fukki fan juróom gën jaa bare fukki fan juróom la gën jaa bare na bu ñu ko waxee nag gën jaa néew mën naa doon lu ne gën jaa néew mën naa doon wenn waxtu gën jaa néew mën doon ay minute waaye gën jaa bari daal doo fukki fan juróom boo fi fukki fan juróom leneen lay doon waaye du tuddi mbërëg moo tax mu ne ak sa xay di gën jaa yàggi mbërëg li saatil ñeel borom tàmbali ga xëyun fukk ak juróom minal ayaam ci fan la indal muqtada fas ku ñu roy kon ki nga soo gisaal moom doo fukki fan juróom su ëppee fukki fan juróom daa war a julli sëy jëkkëram bu dee wër kaaba gi mën na ko mën a def li mu def lépp ndax loolu nekkatul mbir leneen la su dee leneen nag daam lu ñuy wax jàng dereti jorngeel nekkul ci fii waaye jorngeel mooy luy génn ci kanamu jigéen lay doon te dara lay doon waaye dara jooju wéradee tax maanaam mu di ko génne ñaa ko damot istihaaba mooy euh, jorngeel jorngeel la ko mag ñuy wax nga xam ëpp ab ab mën ngaa gis euh, euh, régal mu ànd ak moom mën ngaa gis régal ba noppi régal bi dagg ba noppi dara jooje des fa. dara jooja nag raxas rek ci war ak dem sangu te def ya nga war def yëpp kon kii soog a tàmbali daal ba fukki fan juróom te nga dëkk moom nee ko demal sangu ji te yi nga yëpp nga def ko. léegi wax na la ki nga xamante ni mi ngi ko soog gis di la fukki fan juróom du ko ki ko baaxoo gis it du ëpp fukki fan juróom. kon wax na la ki ñett ñaaw yi ñett ko gis ki ko baaxoo gis ak ki soog a tàmbali ku ñetteel ba ku ëmb ki kon ku ëmb ki mu la bëgg indil muy loo ñu bare bare xamuñ ko te tamit lu ma xam ndax ñu bare bare dañu yaakaar ki bu ëmbee rek du gis reegal te dina ëmb di ko dañ leer bu ko gisee eh, lan lay war def ak nan la ko war a jàppe mu daal kon ak saruhoo gën jaa bareem li xaamil ñeel aji ëmb baxda abin ginnaaw ñetti weer baxda abin gaaw ñett min asurin ci weer fa xamal ni xëyun fukk juróom la yow man ci bis ih subi limal ki nga xam daa ëmb ba am ñetti weer mën naa gis reegal waaye nu ba gisee reegal ma da fukki fan juróom la koy gis fukki fan juróom lay gis reegal masalan tey bi mu ëmbagul moom ñetti fan la daa gis reegal su ëmbee ba bi gis reegal fukki fan juróom lay gis reegal boobee fukki fan juróom su këppee foofu moom bu këppee ëppee mën naa néggandikuwaat duñ ko ni kat demal sango ji ndax daa am leen lu ci tege te mën naa bañ a jaawale mën naa jaawale weer fekk ñeenti weer su boobaa boo amee ñeenti weer day mu soppiku te gaaw loolu am na ci moom boo ëmbee daal mu gisee reegal rek na néeg ba mu set mu soog a kon boo amee ñetti weer te ëmb fukki fan juróom la ko war a gis wa nahu waa yu niroog moom yu niroog moom na kon mën naa dem fukki fan ak juróom-ñaar mën naa doon fukki fan ak ñett mën na ko yées mën na ko ëpp kon wa waa waaye ne bu baax de win gannaaw juróom benn weer ki nga xam am juróom-ñeenti weer bu baax de win ganaaw juróom benn min asun ci weer kaa fan ñaar fukki fan kooku ñaar fukki fan lay gis dayal ñaar fukki fan yu mat sëkk da ko gis kaa fan ñaar fukki min ayaami ci ay eh, fan ya haddu fa ab limum kon ki ëmb ba am ñetti weer ba naa gis Sénégal muy fukki fan juróom ak yu ko niru yu mooy fukki fan ñett niru na fukki fan juróom fukki fan ak juróom-ñaar niru na fukki fan juróom waaye nag ki ëmb ba am juróom benn weer ki ëmb am juróom benn weer nga xam ëmb bi màggee na mën naa gis Sénégal ñaar fukki fan ñaar fukki fan yooyu boo gisee ne dañ koy eh, eh, eh, da ngay day néggandiku ba ñaar fukki fan ñaar fukki fan yooyu mën naa tegal sax fi de mën naa comme comme ni ma la ko waxee ci waaye mën na waa yu mën na ko gis fukki fan juróom-ñett mën na ko gis ñaar fukki fan ñaar lépp muy gis regal su boobaa du sëy borom këram def lenn ëmb boobee su ko def mën pi weer waaw mu gisee regal kaman ne weer wa da koy fayaat maanaam weer da koy fayaat masalan am na juróom-ñetti weer ëmb gis regal kon da fayaat bu ko da ngay gis ëmb nit dana ëmb juróomi at xam naa lu lu kéemaane doon loo xam ne benn détail laaj euh, nit dana ëmb ñetti at nit dana ëmb ñaari at man mi wax yow am na koo xam ne ñaari at la ëmb kon nag nit ñi lu ci bare bari boo doon gis weer wu ne nga gis régal wi gisoo ko weer wi nga gis régal wi gisoo ko fekk nga ëmb ñaari at ngay ngay waaw ñaari at ngay kon nag lool lu mat xam la te ñu bare bari xamuñ ko walla mu ne walam te gis dëgganul nag salaatu haidin julli aji mbërëg wala tawaafaha du wër kaaba ga wa masuma safin laalu kaamil ala boobu kawe na kaamil boobu mooy kaamil boo xam ne lépp ci waaye maa ngi woon benn somon wala benn baat lu dul kaamil kaamil mooy lu mat sëkk kon nag laal ab xaaj wa ñu ko dara waaye kaamil bu ne mat sëkk ko koo xam dafa am mbërëg wala mu wala mu am jës dati wasin oh, kon kooku du ko laal du wër kaaba ga it wala la di ñeel ko aylan ba tey du xulul masjid tàbbi jàkka dugg jàkka de wala bi baytiha doonte ci këram la nekk alal mu'tamadi ci lu sukkandiku am na ñun nag ah bu fekkee ci këram la nekk day masalan tey ñu mu def jàkka ci këram ba noppi jàkka ji bu jaar ci néeg bi foofu mënu caa ñàkk jaar ndax jàkka ji daana ci buntu kër gi wax nañ ni kooku mu duñ ko tere mu jaar ci biir jàll moo tax man xaaral moo tamit kon bu jaagee bu amee mbër day génn kër gi du ko man maanaam dafa jënd kër bi mu jëndee kër tey ñu tabax jàkk ci buntu kër bi nga xam ba nga génn da jaar foofa moom mu am mbër mu kon ma ne sa koo mu jaar foofa jàll waaw moo tax mu ne wala la xadir ñëw ay lan ba tey du xoolul masjid tàbbi jàkka walaw bi bay taxaa donte ci këram la al muxtam sukkandiku ndax dañ ne bu ci këram moom kat wax dëgg yàlla mu ne ab ci kër gi mu def ko jàkka kon am na maanaam bu am ay bagages na ca mën na jël dugg jël ko génn wala yu mel noonu moo tax ñenn ñeneen nii ah lu mën di xew daal du ko du ko génn daal tere nañu koo nappi yëmul de wala la xadir di ñeel ko ay lan ba tey du xoolul masjid tàbbi jàkka wala bay taxaa al muxtam wala la xadir di ko ay la ba tey siyaamul koor mutlaxan ay li ma jublu fardan koor farata aw tata wax na wala coo wala coobare wo koor ngàtt nga faaxaa dëggalal munta woor koor farata munta woor koor ngàtt nga léegi nag kon ki nga xam ne nii dafa gis Sénégal teer nañ ko bu tàbbi jàkk donte ci këram la nekk am ñu ne bu dee kërama ti mënu fa mu am ci lor mën na des ko bàyyi mu dugg ci kem lor ja du woor na koor gu mën doon kooru farata kooru ngàtt nga kooru fay kooru joxe yëpp du ci faru dara ah waaw kii am euh, euh, régal ga ndeke du woor du julli ah loolu doy na waar di kon nu def bu fekkee ne dog na mu ne laakin li fi nekk nag xada u saw mi fay koor ga bax da tuxri gannaaw laab ga doona salaatiha walis julleem ga xale ci moom fadri xamal moom kat bu fekkente ni daa koor gi daa ñëw mu am fukki fan yoo xam ne gis regal julliwul fukki julli fukki fan yoo julliwu wóorul koor googee ah koor gi da koy fay moom julli gi ne moom baal nañ la moom julli boobaa yow da nga mel ne ku ne ci waka julli rek doo julli te doo ko fay bu dee koor gee nag moom koor gi da ko fay bu dee koor farta waaw koor ngàtt nga nag du obligatoire bu dee ko fay moom kon kooru farata da nga koy fay su fekkente ni set nga wajaw sa daganal nañ xiraat alquran jàng alquran li haidin ñeel aji mbërëg mu xaafata nisiyaani ngir ragal a fàtte xale bu ndaw bi ne daal di jàng di def internat wala yu mel noonu yàlla dogal ma gis regal kooku day jël jukkeem jàng juróomi si ko ndax bu fekkee ne ñeenti fan yooyu wala koy def fukki fan mën naa toog fukki fan day tax mu fët kon su boobaa dañuy jàng moo tax mu ne wajo soo dagal na ni xiraat alxuraan jàng alxuraan li xaayu din ñeel aji mbërëg mu xaa fàtte ni saan ngir ragal fàtte waaye ne wala ñu gis dëggnul li saw jihaa ñeel boroom kërub koy mbërëg an yett amu laal farjan am pëy lëxaa ñeel ko xam dan cim tey sawa an moo xam aw xata an wala njuumte jigéen daal bu fekkee daa too ci regal fala taqrabuhunna hatta yutharna la bu leen jege bañ laab biñ ne bu leen jege nag kon ñun la kat prix bi de amul droit làmb ko nag moo xam yaa ko tey moo xam téye ko ci damaa juum làmb ko déedéet kooku duñ ko nangu ndax la la juum mooy dem nga ba jege foofa te dañ laa tere jege gi ah mun la sax xaaral li waar sax mooy wala loxo déedéet ko sax maa béy na sorate la nit ki diggante jumbux laxaaj ñeel ko war rukbatin ay bëtuum xattaa tutima ba bu bate dafa matale xus laxa ak sangam waaye kat. waxuma la laal bëy mi sax waaye jëmmi eh, jumbox bi ak bëti boom yi ñaan sama loxo feel doon raaya yooyu déedéet doo ci laal dara lépp dañ la koy tere far kon ko koo xam dafa surtout daal bàyyi ko ba mu set laal googu laal yow góor gi dafa araam ci yow kon bu ko laal kon jërëgéen jëf ñëpp foofu